rahmatullah man la Mamour Syll Momar Syll at l'état civil man maay maire bi nga xamante ni bërki démb lañ démb lañ ma fal ma wuutu ay maire ñu ngi le président ay maire ci maire maire maire Dakar. waaw loolu dina yomb wax ndax ay maire président ay maire bi nga xamante ni am na ngànt ba mënatul continuer mission bi dafa dajalee conseillers am yëpp wax ak ñoom ñu leen léegi dama bëgg wut ñu ko ma wuutu man nag su sañan

kon boog bu fer xaman lam leen waxan suñ ko defan moo doon gën mais olof daal ni waxi mag moom wedd gis ñun continuité la ñuy def ndax dañu ànd nag maire boo xam ne la ba Sénégal gépp xam ko bi euh, ndox bi euh, ñëpp village yëpp am nañ ko courant plus de 116 villages la fa matul 10 bon mi ngi ci piste yi mi ngi ci route yi kon ñun continuer la ñuy def fa mu tàmbalee rek foofu la continuer moom moo ñu nekk suñu kanam ak suñu ginnaaw ak suñu côté di ñu accompagner ba keroog mandat bi jeex incha allah ñuy réaliser rek nag beneen bi aussi man damay jullit boo sosial social daf ma neex dimbali doomu aadama yi xam naa nag ci waxtaan conseil budget bu ñuy voté rek ñuy sur le plan social ñu góorgóorlu ci ba néew ju doole yi ñu bañ leen a en di leen bu baax baax te yàlla tax. te bu ngeen daa gën liggéey aussi pour que vitrine ci réew mi ci Sénégal. allah Mérina Dakhar moom ba doon set commune yi gën a Sénégal ci la bokk. te moo ci gën a rëy ndax 116 villages la kon boog ñun dañuy dañuy xëy di réaliser rek di investir di réaliser di inaugurer ànd ak président ay meru ba mandat bi jeex nga xam ne képp bu buñ ca demee ba 2027 koo dégg na naan man yàlla na ma yàlla def meeru Mérina Dakhar ndax ñoom am nañ fa benn centrale solaire boo xam ne li mu ñuy jàppale bari na Mérina Dakhar daal pour le moment namuñu dara lañ jee bëgg daal mooy ñu woo nit ñi ñu àndandoo liggéey man nag du ma maire opposant maire maire maire unificateur la man damay boole nit ñi ñu ànd liggéey kon damay tàllal ñëpp loxo ñu ànd liggéeyal Mel ndaxaar ñii fii yàlla def teg ñu teg yow pouvoir bi ñu ànd ak ñoom ñu accompagner ndax maire kese su ko état jàppalul mënul lu bari kon boog ñu dañu ànd ak état woo gaa yëpp ñu ànd tabax tabax tabax dëkk bi.